loolu moo tax ñun ñu woote du mbirum politique du mbirum Ousmane Sonko du mbirum Yewwi Askan Wi du mbirum société civile bi waaye mbirum sénégalais yi la comme nag yàlla daf ñoo nattu ñu jiitu am lu ñu woote suñu digganteeg sénégalais yi gëm loolu it ndax xeex yorin gu ñaaw gi ñuy yor réew mi ñëpp dañ ñu cee ràññee bi ñu duggee ci politique ba léegi loolu lañ ñu gën a ràññee

ba ca jiitu mooy le 30 décembre suñu mbokk société civile yi nga xam ne politique guñu laajuñu réew mi laajuñu mairie laajuñu assemblée nationale waaye réew mi rek moo leen ñor ñoo woote ne lii duñu bàyyi mu romb ñuy wax képp kuy sénégalais te fekke ko te mën ko te tal ko ak foo munti nekk ci Sénégal góor góorlul nga dem ci ndaje moobu parce que bu ndagne bi réussiré message bu fort lañuy envoyer Macky Sall waye bu la ndagne bi échouer ñom dañuy gëna am fitné comme askan wi yéegalu yaramam li xew nañu continuer wéyal li ñu wéyal bi moy woté nañu li tuddé concert de casserole nga xamné def nañ ko fi ñaar yoon ci at wi mooy jëm jumtukaay bo xamné wax ak Macky Sall la ci anam goo xam ne war naa mun a yomb sénégalais bu ne waaye muy jur résultat boo xam ne ëpp na beneen résultat boo xalaat muy communication bu am solo boo xam ne xale bu am 10 ans sax mën na ko wax def ba mag mu am quinze ans te bu du génn këram day taxaw ci teraasam wala mu taxaw ci buntu këram wala mu taxaw ci ëttam àdduna yépp di dégg ni Sénégal am na lu ñu naqari ci ni ñu yoree seen réew ak ni ñu yore seen alalu réew ñetteel bi mooy un rassemblement boo xam ne nañ ko le 6 janvier muy rassemblement bu mag a li am solo mooy lii du a fàttaliku leen bi affaire pétrole maa ci a bind ñu ci wax di ci télé bu wax BBC bind ci article ca a commencé fi ay manifestation waaye Sénégal sénégalais départ la am waaye amul arriver mën na xeex waaye mënu mënu koo yàggal tey dañuy gis ay réew yoo xam ne dañoo am gëm-gëm di xeex ay ati at ay weeri weer gis nañ li xew Iran gis nañ li xew feneen ak feneen laaju ñu senegale yi sacrifice bu noonu waaye dafa jot ñu defaraat suñu réew mii ndax coono gi sénégalais yi du métti na te dara waralu ko lu dul yorin gu ñaaw gu ñu yor réew mi li tax nag le 31 décembre amna ñu bëgg wax naan waaw li tax ñuy woote 31 décembre nga xam ne date républicaine la président war a wax ak askan wi kon waruñu def li mbokk yi est-ce que président la Macky Sall respecté na république est-ce que bu respecté woon république lii muy doxal ci réew mi dina ko doxal moom moo njëkk jalgati république ci tëj jaay doole utiliser justice di dal ci kaw nit ñi.

ñoko wara envoyer un message ci date républicaine bi ren jii moy don fukel yon ak ben bu Macky Sall di wax ak sénégalais ci 31 décembre mu déssé ko ben rek muy bu daw bu bu déwén inshallah mu abal ñu réew mi ren jii moy fukel yon ak ben est-ce que Macky Sall limu diggé won ak yeen wa askan wi ci fukki at ak ben yooyu est-ce que Macky Sall respecté nako kenn ku ci yéen mun na koo tontu moo tax la ñuy li ñuy def 31 décembre bu koo def diggante vingt heures ba vingt heures trente ñuy def noonu muy concert de casserole askan wi mooy wax ci datu républicain ak président la république ne ko kontaanuñu ci ni ngay ni ngay doxalee réew mi te dañoo bëgg mu jeex fii rek askan wi amul possibilité di def loolu li fi nekk du fi jóge looloo tax ñu choisir date boobu kenn gënuñoo nekk républicain ndax li ñuy xeex xeexuñu ko ngir suñu bopp de république bi moo tax ñu koy xeex république bi moo araamal ñu luubal alal réew mi moo araamal ñu bu ñu luubalee alal réew mi ñu ne dara du ci tegu kon république boobu mooy wax ak président Macky Sall du Ousmane Sonko du du du benn leader politique du benn leader société civile waye askan wi république bi moy wax ak Macky Sall li rek doyoon na ci ñu def ko waye bo ci bolé ñaar yi nga xamné lu am solo la moy ni ñi jëfëndiko justice pour di tej ay gor di len metital, kaw pap ali ñangi fi tay amna ñaar fukk ak ñaar ci ay ndaw Sénégal yo xamné ne defuñu dara dul wax sen xalaat ci internet wala ci rajo wala ci tele ñu jël leen ne leen rëpp ci kaso bi boobu jamono ay ñu doon jaay drogue ak ñu doon defar faux billet ak ñu doon defar léegi lii ñu ngi ci mbedd mi di dox ñaareel bi nga xam ne war nañu tax ñu génn ak ñu manifester ba Macky Sall xam ni kontaanuñu mooy njëgi mbokk yi Sénégal yi sonn nañu lu doon jar fukk démb tey mi ngi jaar juróom fukk kon ñu ngi woo Sénégalais yépp ñu xam ni ñun ñoo mën a dooleel suñu bopp té sa suñu néwulé suñu bop rek dolel nañu Macky Sall ci lo xamné luy gañ réew la kon le 31 bëgg nañu fu way nekk ci Sénégal wa aduna yépp dégg ni manifeste nga ni am nga lu la nakari ci ni ñu yoré Sénégal ni Macky Sall yoré ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig dajé ci événement yi nga xamné tuddu nañ ko assalamu alaykum wa rahmatullah